yow la ngay def fii yow la tey liggéey yow la tey liggéey la man man liggéey la ngay def fii Sénégal moo yëpp ay ñàkk <laughs> mais buuba jàkkaarloo de mais buuba gis nga daaw da nga doon wax escort bi ñi lay demee ñuy demee noonu non non yow dang dang ñu non tey ñaar lañu dóor tey non bàyyi mu set <laughs> barke yàlla gis nga lii lii bu ci procureur bi waxu diggante Cameroun ak Côte d'Ivoire dina am kër bu mag ñi dañoo am problème de ivoiriens yi ñoo gën a supporté sax ñun waa Sénégal barke yàlla ñi am nañ problème de lii tey ci procureur wax diggante Cameroun ak Côte am na problème de xaw ma problème mu lan la nag barki yàlla. léegi léegi dama ci boole réew ne léegi dootuma dem seetaani match tant que fayu ñu que ma nekkee porte bonheur amu na <laughs> léegi léegi moom ah, bu pare lan lay wax waa Cameroun moom lan moo taxoon mu nekk en retard doon kaas naan day bokk ci premier match bi ñu laala ko jet privé mu ñëw moom kese même kese moo ko a jël ñëpp jël privé mais moom kese jet privé. xam nga ñëw Cameroun gi la eh wala naa yaay mbaam ay waay kii réew na nag kii laa bëgg kii ñu la Sénégal ñu ñu mën a soo Sénégal ñu ñu mën a soo Sénégal ñu ñu gën a soo Sénégal ñu ñu gën a soo Sénégal ñu ñu mën a soo Sénégal Broadway! nee na couvrant bi moo koy dóor xoolal xool fi mu bàyyi gars yi on a respecté wul kenn Cameroun kenn kenn kenn xoolal xoolal xoolal gars yi moom kenn nekkul ci gars yi kenn. boo eh aywa eh aywa moo réew nag kii ay moo réew.